ban ana xalaas bi nga xamni kak targa waaji dafa dem ziaré amelu papa ma jaayam di guin gis ben armel buñu buñu tek kak tar buñu jël lëmër ci euh percal waaji gis tar gi jël ko yobbu ko kërëm woo téléphone expliquer ma man ko defal ni, ak ni ni ak ni déglu ko. dama xaw jaxlé quoi waaw parce que tay bima dama dem bon Thiès la dëkk dama dem dulisi juma Euh, grand bi mais lu tax ma fay julli si parce que euh, foofu fa lañ denc sama pap fa lañ denc sama yaay quoi nga xam ni boo julee boo jullee ba pare rek di nga mën a di nga mën a dem ziare leen quoi mais tey dama leen dama dem ziare ji bay dellu si ndooy bon bi ma paree bi ma leen ziare ba ba jóge si tomb bi di di di di génn si si armeer yi si armeer yi am benn ko benn benn tomb boo xamante ni moo xaw ma ko nag ñu teg fa liggéey bi quoi ma la ma la ma envoyé nii photo bi bon ma ne lii de liggéey la parce que lii buñ ko tegee si armeel rek liggéey yu garaaw lay doon quoi ma jël ko nag si laa ko jël ma def ko sama poos bi ma ko jëfee sama poos ma ne xaaral damay bàyyi ba ngoon am naa benn maire bu nekk sama koñ xëy na kii maire bu am xam-xam bu ma ko wonee dina ma wax lii lan la quoi. léegi nag bi ma demee kër ga ma ne xaaral ma añ ba pare ma tëdd mais sama yaram bi ça ne va pas quoi ndax kii bi ma yor noonu je me sens pas bon ma woon ko soxna soxna si ne ma lii te nga génne fii affaire yooyu quoi da ngay dem nga wane ko ñu xam parce que Ndoye Bane da siy def ay ay ay ay émission quoi. lii il faut nga wan ko ku ko ku ko xam quoi ku ko xam dëgg dina la wax lan la ko si laa dem si maire bi nag. Euh, percar benn kaakatar la kaakatar bu wow ñu jël ay bant euh, wërale ko si yaram bi wërale si percar teg ko noonu. li tax li ma leer ba leer ma mooy ba mu koy def kaakatar gi day dund. kakatar bu dee dund day dund ndax bu dundul kon kii day furi dana naaj bi dana ko furi wala dara nga xam da def mais lim ko def nii kon da lii da koo bëgg ray, da koo bëgg a mais toj na mais nii ma ko dindee toj na toj na dindi lii doon tasaaroo nga tàggale lépp sànni bu ya, rek toj na toj na toj na da nga def sa loxo doomu taal ma def sama loxo doomu taal mhm. parce que kay man bi ma ko jëlee ba tey sama yaram bi dama mel lu xaw a kii. ngay oh. waaw sama yaram bi moo tax ma ne xaaral ma ñëw ma ñëw woon ma ñëw woon la sànni ko. waaw. wala sax boo mënee saw saw ci sotti ko ci. waaw ma saw ci sotti ko ci. waaw may bu ko saw. dangay saw ci pot ba pare doo koy doo mbuus mi la newoon. nga man maa ko def si mbuus bi parce que man maa ko gàddu. Mhm. dugal ko si mbuus bi léegi dangay saw ba pare sotti ko ci bu sa bu ko tiim saw dangay saw ci pot. sotti ko ci ba pare. sotti ci dóom. ma sotti si dóom. waaw si ci kaw. ci kaw. waaw sa loxo itam boo demee nga laal dóom boo defee ba pare da laal. ma laal dóom mm. man daal du ma du du du la def ah, du def dara ka ko moom kay. ka ko moom sax du ko def dara ndax xas na ko. xas na ko boo ko gisutoon bu ma ko jëlal woon musiba am. Uh-huh. kon musiba am de. naa. ay waa kañ ko def de yàllaa ko wëdd. Mm-hmm. dégg nga lii kibaare rek wax dëgg yàlla yéewi na lool de. <laughs> nit ñi doomu aadama de lu ne ñeme na ko moom lu ne wax dëgg yàlla <laughs> eh, xam naa moom xool rek laa xam ne kàkkatar la moom waaw eh, mooy laa xam ne lii moom kàkkatar la nag liñ ci mën a liggéeyee bari na liñ ci mën a liggéeyee bari lii nag moom daanaka <laughs> boo xoolee day xam ne daanaka daanaka tegtal na boppam wala wax na boppam ndax ki jël liggéey moom def ko def de takk ko ba mu ba mel ne am néew nga yóbbu ko ci biir armée moom ku ne xam na ne moom la la naroo ci jàmm waaw ku ne xam ne naroo ci jàmm ay armeel daal dafa am lo xamanteni lañ ci war def moy dem di cay wetal yalla sunu borom di ca ñaan di ca sakku lu bax way amana nak mm, di ca def lu bon dal man na ñak man lolu rafetlu ko wax yalla e, do ma aadama mom ku koy liggey tamit ne la wóor bu liggey ba toje dana këpp sa kaw lolu mu awma ci lo may bari waana na nga jek jek nit ki dem ba mujj yag mu def lu def lo xamanteni waru ko def rek def ko ko upp bop rek yefe mu ji wëlbati ko ci mom ndax du ñepp yam <laughs> maanaam li ñu kenn ku ci nek kenn xamru la sa yaay boote xam ne ñi dal ñi def euh, li li ñi defor nañ ci sétat yalla bu baaxa baaxa bu la léré ni lo def nit rek yag yag sa kaw lay muju bala nga def nit dara di nga ci bàyyi xel bu baaxa baax mhm. ah day day day rek waye mom def lu bon mom ku def lu bon nit bala nga dee dang ah, ko gis. la sigle boko fi téye ñëwaat. voilà te mo la xé pays africain yi lii nag dong ñu téré dox dé da ngay bok ak man service may dox nga xamni man liggéey kat la poste bi ma lek dama ko mérité nga liggéey ma ma dof pour nga jël place bi nga liggéey ma ma dé pour nga jël place bi te wóor na ni yow ku la jox place bi liggéey entreprise ba daan dëkk boobu nu muy doxee. du dox baan Abdoulaye Diop ak ñuy accéléré. boobu dëkk am na benn buxaaba bu nekk boori yarax. Mhm. day am ay client mais client bu mu am danaan la ndooy baan maa ko faj. loolu daal dara. fajoo ma musuma feebar man ba ma jógee armée ba léegi yàlla dimbali ma dimbali ma yàlla ak yonente bi ak Serigne ak sama kii dimbali nañ ba feebaru ma. yàlla na yokk musoo maa faj. yàlla na yokk soo bàyyil du yéex nag nit ñi nag nan ma yaa ma faj. mbaa di nga ko xalaat. ah déedéet danaa fekk ni ko foo ma faje ak man kañ laa may di bëgg client tax mu naan ndoy baat mi ci rajo bi maa ko faj maa ko defal naa am na solo xalaat <laughs> xam ngeen ni bu jeexee dëggantaan moo ci topp tey ah. sama invité Miss euh, bi nga xam ni moom moo jël euh, Miss Sénégal moom la ñu am ci émission dëggantaan gi nga xam ni euh, ba mu ko jëlee ba tey maa ko njëkk am ci dëggantaan léegi rek ci kanam ak les phénomènes de la musique sénégalaise ba tey sur RFM 94 lii def na li méttiwu la li méttiwu la xanaa allo présidence